diggante Petit Sélé ak Cargo bu benn baraak samay waay ngeen comme Babacar ñëwagul Sélé mbere ko indi tey mbëru mbapat dañ fee bari suñu jaxsi bi mbëru simple yi la xam na fu xasan mais kenn du idi Petit Sélé ak kanay bëre nii Petit Sélé la ak Cargo. Petit Sélé moom moo kanam. waaw Cargo moo woon kanam parce que dafa koo xam ne mooy rek célébré benn lañu. dafa def 3 combats Thiès 3 victoire. laay laay la la. Cargo dafa def benn combat benn victoire tas yaakaar la daan. am de. kon ay mbëru mbax ne bu ñu dugg si si lamb ji am nañ tas yaakaar ak Petit Sélé. Cargo ñu ne moo nekk nii Babacar. moo woon ginnaaw. Petit Sélé wuri wa dama koy wax ma ne ma ngan taali bàkk war doon jaay tay mu lamb la tay mu leer petit salam yi fan yi passe ba ma koy gëj a gis daa jël tournoi xam nga Cargo dafa wàcc waaw demi final ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye daan ko mu wàccaat quart de final ak Modou Pouye waaw daan ko waaye petit salam fan la nekk campement la nekk Qatar championnat Qatar la nekk ah, mu ngi Qatar mu ngi Qatar ñoom yankaw gaay ñoom yankaw <laughs> ndaanaan yooyu. ndaanaan yooyu ndeysaan. Cargo toujours gauche droite. Eh! xeex da nga koy daan. waaw ndax ñoom ñaar ay mbëru boppam lañ seen xeex bëriwul. waaw ñoom ñoo dafa leen siifur mbapat ba aden ñi say waay lañ de dafa leen a siifur mbapat ba aden yéen a bokki gaal waaw ñoo bokki gaal a gaal Petit Sélé da ngaa añ pour plaqué ko fi mu baaxul toccal ba la dindi suuf sandi waaw Petit Sélé at cargo Petit Sélé cargo Petit Sélé at na moytu na moytu nag waaw na moytu day xar jéppeen Paatu ko dóor bu daanu Paatu ko da koy mbot wala. waaw waaw. daan na ko xëy na looy wa Petit Sélé waay waay Petit Sélé waay. Petit Sélé daan na Cargo. waay Petit Sélé waay. rek la si Sélé mele. waay waay rek Sélé mele def na mbir waay. waay combat bii nekkul woon moog Cargo. moog sol joo la woon sol joo feebar Cargo jël ko. oh Sélé mele waay. daan rek la si Sélé mele. waay Sélé daan xoolal Alpha lii borom campement ma ngay jaayu. oh. ñu ngi leen di wax waa campement ngi ñibbi waa campement.